nañ xaar ba toog tank te di ci kër gi yaay ana ki toogoon fi maa ko dàq ci biti maman dégguma nga ni man maa ko dàq ci xaj yaay yow nga dàq delphine ci xaj waaw mais maman vraiment tu exagères quoi oh mais vraiment tu exagères yow man may dem ko ñom delphine ñu yëkkati ma ci kaw def ma comme bour. may buum di bumi, yaayam sax yeen saa su ma bëggee ñibbi mënu ma noo toogal may ñi mu maa jox paas tey yow delphine ñoo ñu doon da dax sama bir kër man sa bir kër yow da nga am dar. sa kër bay. Fi du sa kër sa kër bay la yaay xam nga lu ma la bëgg a xamal man delphine mom la bëgg te mom lay tak indi ko ci bir kër gi ma xool na kan mo ci mën dara ci kër gi xana bobu day fekk man nekuma ci kër Delphine du fi dugg tay du fi dugg ëllëg te lo ci bañul rek bañu mako ko na xam ndax yaama jur wala mala ah baxna comme non la man vraiment man soo juré man man man dina ci dute trop soo juré juree yaay dinaa ci dute trop mais baxna on verra caga bu góor bi nga do tante pare. lan laa doon def bay li nga doon yàq delfin yëpp yëg naa ko gelu kii bi aatu bi nit sax xanaa boo koy xas nga di koy yedd amu ci vergogne saay bu xëyee xëy si mu mel ni ku ne ci société nga war koo bàyyi nag tante kii la def nag bëggoo ko ñépp xam nañ ni buggoo ko mais rafet ci nag tante xam nga ni kii moom du bàyyi aatu aatu it du bàyyi ndax dégg nga lim la fi tontu lépp te nga cee rafet nag tante. du ma ci mës a rafet bu ñu sonnul rek du ma sonn te xam nga ni kii du ma nangu mukk aatu di ko takk di ko dugal ci sama kër gi sama mbokk yeeg sama am di jàmm yi jóge daara jolof ñëw fekk ko fi duñ ma nawloo àdduna ak àllaaxira itam kii da ngaa foog ne bu ko aatu takkee day continuer vie bi muy vie yow yaa koy dindi ci moom nga koy yedd di ko jënd ay yére olof ak yooyu mu changé garde robe xale bi neex naa waxal nag tante danga koo bëggul rek yoo xam lu ma bëgg li may lijjanti sama kër gi maa koy lijjanti te sa yoon nekk dinaa la xamal leen de xam naa looy wax ba fekk yàlla tudd na ko ci arastante di nga am gàcce de te nga cee rafet yow lu sa gémmiñ gi du wax jàmm ak salaam sëy du bi baa yow doo ñaanal jàmm ah du da nga doon raxas duus mal yeggale sa raxas duus bi am nga loolu doy sëkk bu bëgg tubay sante man tey ma dew ma marché. yow mi yow yaay togg yaay dem marché comme mën nga toog fii nag bu ko wax nga tontu ko doo yëngu sa yaram bii dugg ci waañ. waaw waaw man tooguma tey de. man mi yow mi yaay togg yaay dem marché man pare kon añ tey bu dee man rek du ngeen wan yabaat bu bëgg a de man dama yaakaar ni sama kër gi est-ce que ñii ay rab dugguñu leen. waa baax na dinaa jóg ci yéen de. سلام حمد لله من عائشة رسول الله تدو حريف لا سي دلفي اك اكو مان سدوم دما نيوان تاي نك بور واستو اك سا ديغنتي اك ديفشو ماما دلفين دي نيت كو باخ لا مان اك موم نيو اندي ديبي بيم نيكي خالي فواياج اك موني تاكالي يومي با dang koy comprendre rek maman yaru feulé ak fi du ben motax cholit geek tatouage beeg yooyu noonu parce que moom foofu benn tubaab moo ko yaroon te ma nit kenn du ko jugé ci solinam parce que man maa ngi nii am naa doom yow mi waaw bu am deux ans te awma ko ci buum dañ maa trompé tayoo ko waaye Delphine su ma sañoon nag nga waslu si moom ak rek mën nga ko changé ndax yow ni ma la gisee nii macha allah. noo waxati moom nga tudd sax. Aïcha Rassoul ak lii nga sol ni mu yiwee macha allah nga sol sa robe teewul def sa greffage te teewul da ngaa jël sa kol teg ci kaw ah mu yiw ba de mais xale bu ndaw ñëw ne jomm sama kanam xaw ma short la sol xaw ma silib la sol naan ma mère sa kër laa nekkoon démb ci guddi ay 2 heures du matin ay trois heures di matin. cinq heures du matin bi ñuy nodd fi laa génne ci xale bu jigéen bu ndaw naan ma sama chargeur fi laa ko faat kooku dinaa ko jël di ko dugal ci sama famille bii wala ci sama biir kër gi mu di ko tas di yàq samay doom du ma ko def ay ma baal ko daa juum rek daa juum rek yow bu ñu la tegaloon Delphine ak man ne la kan moo am doom kan ngay taal moom moom mii col-col gu bon gi moom laay wax ay maman et pourtant mën naa waat ni Delphine mu ngeeg ndawam ba tey nit ku baax la de Aïcha Rassoul bis ni ki tey def naa la sama dom bu jigéen bul gej ci keur gi dégg dégg del ñew fi ci keur gi ñuy waxtaan ah malay ye ci àdduna dégg bul ci nak ci keur gi t'inquiète pas te xam na sa dom bu jigéen bi sama dom ba Nafi hmm Nafi Mbaye mhm. yow da xam nga touru kër du ma ne sax touru keur gi waye touru famille bi moy touru famille bi waaw et pourtant dafa bax de man de saa yi su ma léttoo si moom su ma koy jox xaalis bi day bañ ñu dugg laa. kon de rus na la ah. Nafi Mbaye moo jox xaalis mu delloo la ko. moom kay yar nga leen fi allah yàlla baax na yow daal fexeel daal bu bul gëjati ci kër gi dégg nga. waaw bu soobee yàlla ak yeneen dina ko dégg incha allah waaye bu fi gëj de dinaa la xaar de. waa kay nuyul ma seen waa kër kontaan naa torop macha allah xale bu jigéen day yib. waaye sol say daggit ak say sort ñëw ne jomm sama kanam naan ma sa kër laa nekkoon ba seen kër di man kooku dinaa ko bàyyi muy dugg ci suñu famille bi di ko tas xalaatuma ko du dugg sama kër aw ma ci sax kersa Votre série revient après la pub. Ma aide cosmétique entreprise Bouyes Bangok a ah jigéen Ma aide cosmétique dikna sen seen jaaxle Gam molato gàmmolaato bi lakk dëkk bi ba jigéen ñi koo ci gis ma nga tal ba melni Ci cosmétique la ko. Gam Fatima bi nak pour teint marron yee ko tax a jóg stabiliser sa teint ba nopi yok sa éclat ou teint ba fo toll di ana yi pour yaram bu tiéré. Gaw len gaw muy gaw entreprise maa cosmétique da cosmétique dafay yaram bu tiéré. ah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 na fi bàyyi sama valise damay génn kër gi. génnoo. man damay génn kër gi fii du ma fi toog. un pas fii toog ci kër yow Atoumane lan la Atoumane depuis quand nga commencé yow comportement bi nga mel ni gaynde ci biir kër gi Atoumane lan la. sama yaay li ma def dafa ma metti fii la fekk Delphine mu toog mu dàq ko ca xaj mel ni koy dàq xaj. Eh, alors man su ma demee ko ñoom Delphine yaayam daf may teg ci kaw di ma attaayaat lu nekk defal ma ko di xool ba xam am koy jox sama yaay li mu def dafa ñaaw. lan nga bëgg man fii du fi toog lan nga bëgg. eh lii la la juróomi baaraam yi du gis ni ñu wutee yàlla mooy sàkkee nit ki nu mu ko neex yaayu delphine mën na nekk ni sama yaay mën na nekk ni yàlla mën na defal yaayu delphine mu am compréhension que ni kii sama faru doom la su ñëwee dama koy nenga-nengal mais est-ce que yàlla def na ci sama yaay compréhension boobu lan nga bëgg dañ koy dóor ne ko tey nga changé sa jikko dañ koy dóor ne ko lii waroo ko def doom nga yamal palaasu doom su ma nee doo génn kër gi rek doo génn atumaan yaa ngi may bëgg a yab de gis nga delfin ni tax ngay abandonné sa gàlle di dem naan da ngay dem moom mi ngi toog kër ndeyam ak baayam te fii boo fi jéggee dangaa jéggi néewu na fi mbay ba pare soog a dem est-ce que leer na dama ne bougé woo dugal ci biir laa wax nga toog man dinaa régler problème bi. billaahi am na lu may seet. atumaan duggal sa biir néeg waay yow. am na lu may seet duggal laa. bu dul woon ak yow du ma damay dem sama yoon. fii du fi toog sama yaay mu nekkee. xam Assalamualaikum mama, maaleykum salaam. waaye sama caat mi. maa ngi nii tooga. noo fi. ah waxoo ah, hmm, ma woon lii de. ah ñëw naa kat. waaw baax na. waaw ana Atoumane. Atoumane dafa génn. man de waxu Atoumane sax nag moom fi andi. ñaar da bëgg kër de ah dafa magum Atuman ma ko jur te musuma wax mu tek ci baat kon bu deme tay ba muton tax atuman suma waxe mu tontu ma baa mu yekati batam ci kaw ba mu jaral ko mune day genn keur gi ah wa ba raison pour laquelle nak mama comme dem na ba Delphine jaral ko pour mu genn keur gi est-ce do len maye rek yoon lan ah sama jaar nak krusna la waaye Delphine Atoumane du ko mës a takk fekk maa ngi ànd ak sama bakkan bi ak sama sal Atoumane kër gi kër baayam la ànduma ci baayam àndu ci mu ne day takk Delphine ba mu jaral ko mu ne day génn kër gi waaw xale bu góor la léegi mënal na boppam moo tax mu ne day génn waa na dem. vraiment eh, léegi bu génnee kër gi nag. waaw. bu génné kër gi dé nako lèr ba lèr ko né moy dogo naa ak moom àdduna ak alakhirah te bis bu ma té du doon néw ku bayyi atuman mu tim ci sama néw bi yalla bu ma la raw bu keroogee ay mama bu waxé non wa légui dégluma man dina waxtaan ak atuman si ko ci bu li yak sa wax atuman segam Nafi Mbay mi mu bokal nday ak bay mo mënul ci mom dara na naxtaan na neexal na lu ne def na ko Atoumane jàpp fi mu jàpp rek ne day génn kër gi waaw ngelawal lawal jàmm na def jëru ngay sonal sa bopp de ah, waaw baax na moom yow daal li ma la wax bàyyi si xel rek man teewul dinaa wax ak Atoumane waaw baax na léegi maa ngi ñëw dem balaa maa guddee waaw d'accord naa fi ñëwaat dégg d'accord incha allah naa la xaar de waaw incha allah ma seen <laughs> ko dégg

dama laa woon téléphone ne nañ daje si koñ bi parce que dama bëggoon ñu waxtaan seen kër laa jóge léegi dana waxtaan ak maire bi mu xamal ma ne dangaa bëgg génn kër gi ndax jigéen te jigéen jaru ko Delphine sama xarit la de waaye warul tax la bëgg génn seen kër yow tamit ndax man ma mësa nangu génn sama kër ndax góor yow tam waroo nangu di génn sa kër ndax jigéen en problème n'est pas mais li ma metti mooy yow defe naa ne kër gi dara ëmp la fa sama yaay li ma bëgg a imposer ba pare dàq bi mu dàq delfin ca xaj mel ni kuy dàq koo xam ne loo xam ne du nit wala soxla wuñ ko sama yaay dafa war a xam ne delfin doomu jàmbur la moom ni mu ma juree noonu lañ juree delfin warul ñëw kër ga mu koy dàq mel ni benn animal wala loo soxlawul donc su bàyyee kër yëpp bàyyi ñëpp ñëw ci man waru ko mën a dàq man def ma lu dul dugg ci nekk bi ne xaaral ma sol samay dàll génn man ko yaay ana ki toogoon fi mu ma dàq naa ko ci xaj mais c'est qu'on se dise la vérité neexul ci xol koo xam ne moom nga bëgg dugal ko sa biir xol ñu bëgg la désorienter comme ça ba pare bëgg la imposer leneen loolu neexul rafetul sama yaay man xaw ma quoi je sais pas xaw ma dafa ma soxoree xaw ma dafa bëggul sama bonheur xaw ma dafa bëgg bëgg ma xañ sama bonheur je ne sais koo xam ne moom laa bëgg mu bëgg ma séparer ak moom mais su bëggee sama jàmm man na ma na ma bëggale ki ma bëgg et puis c'est fini. dëgg la de neexul ci kaw waaye kër gi sa kër yaay la am na droit génne ko bu ko neexee Delphine dugg mu dàq ko parce que la moo ko mais loolu warul tax nga ne yow da ngay seen kër du dëgg. man daal suma ma sañoon nga bàyyi loolu yëpp jëlaat say bagage dellu sa biir néeg bu fi génn ndax affaire de jigéen d' accord. d' accord pas de souci dinaa dinaa bàyyi xel bu baax a baax li nga wax mais yow aussi bëggoon naa la dénk benn mission si possible te xam naa ni di nga ko def dama bëgg nga waxtaan ak sama yaay mu nga xamal ni ko Delphine du ko bon. mom daf ko jugé rek ci apparence am juger ko ci accoutrement mais Delphine nit ku bax la xol bu rafet la yor mhm. te sama yaay façon jigen bi mu mu je pense que ni Delphine la quoi bëgg te xam naa ni ku baax la nga essayer convaincre ko wax ko Delphine mooy kan wax ko baax gi mu wax ko li nekk ci xolam mu bañ ko que loolu kese laa nga pourtant ñëw naa seen kër si loo yëgul de. Ah ñëw naa fa de te wax naa aussi ak sa te gis naa ne ruus na ma lool léegi danga may bàyyi moom rek man ma géré ko peut-être du fur et à may wax dina bàyyi mais yow daal li ma la wax rek may ma loolu dellu. baax na ne t'en fais pas dinaa ko def incha allah. d'accord mais mënoo nga ñëw ñu àgg kër gi. faraa jóge léegi. maa ma dem de du ma fa gëj. Ah, baax na merci porte-toi bien. d'accord ok merci. ok on fait comme ça je suis très content